di wax ne li nga xamante ni nii moom moo ñuy dajale fii tey moom mooy génne benn téere bataaxal boo xam ne ñu ngi ko tuddee itinéraire d'un député au cœur de la République maanaam itinéraire député boo xamante ni nii nekk na ci biir parce que ñi nga xam ne aussi ñi ngi suivre actualité bi xam nañ ne am na liñ naan euh, mbir mi duma ci tubay caay laa ci am naa ci ay responsabilités yoo xamante nii mën na ma permettre tey ma bind parce que nag assemblée nationale jàpp naa ne boo fa defee ñetti mandat war nga mën a partager sa expérience te li nga xam ne moom ma gën a guidé moom mooy adduna bi il faut que xale yi xam ne mën ngaa jóge ci dara ba am dara du politique kese parce que muy nga nekk homme d'affaires nga nekk médecin nga nekk ingénieur ak leneen j'ai voulu dama bëggoon partager loolu ñu xam ne àdduna bi li fi am solo moom mooy yar teggin ak am gëm-gëm ci sa àdduna ak gëm am gëm-gëm ci sa étoile loolu bëggoon naa ko partagé beneen bi nga xam ne moom ma gën a tax ma bind mooy député dañu yàgg a wax ne député amul njariñ xam nga loolu yàgg nañ ko wax te ma gis ne souvent député yi duñu bind pour wax li ñuy liggéey alors que liggéeyu député dafa metti ni ñuy wotee loi ni ñuy defee ay commission d'enquête ni ngay demee sur le terrain ak lépp loo xamante ne ni mi ngi ci liggéeyu député ma ne nag dinaa essayer ci humilité bind pour partager xam nga bind nag cela ne veut pas dire que li nga bind rek moo am parce que su subaa di nga gis koo xamante nii gaa ne Abdou Mbow mii ko yabaatee lu tax mu bind lii no waaye dama leen di wax di leen tontu ne leen li ma bind jàpp naa ne am na loo xam ne des na ci am na loo xam ne maa ngi ko ciy xaar ci ay critique am na loo xam ne jàpp naa ne ni ma ko waxee peut-être demeewul noonu waaye li nga xam ne moo ma gën a motiver rek mooy wan Sénégalais yi ne député am na njariñ député day liggéey ni ñuy liggéeyee métti na ba pare plan Sénégal émergent wane président de la République ni nga xam ne noonu la ko na transformer Sénégal à travers yenn loi yi parce que boo gisee loi ni sur le contenu local sur le ay code électoral criminaliser le viol euh, li nga xamante ni moom mooy ay criminaliser vol de bétail ak yooyu yëpp. bi wax naa ko ci biir livre bi même période de Covid bi nga xam ne dañ doon gouverner par ordonnance def naa ko ci biir livre bi am loo xamante ni wax naa ko ci donc njëriñu institution yi nga xam ne mooy institution de la République parce que Sénégal il faut que ñu ne à part institution yi institution yi mooy réew mi yi bu ñu ko nasaxalee jàpp naa ne réew mi day nasax donc dañu war a dëgëral institution yi mais surtout institution parlementaire bi nga xamante ni man ci laa bokk loolu mooy li nga xam ne moo ñu gën a guidé pour ñu wax ba pare wax ak ndaw ñi ne leen il faut que ñu gëm seen bopp il faut que ñu gëm ne Sénégal gi ñun ñëpp non seulement ñoo ko bokk mais war nañu mun a am une euh, cohésion boo xamante ni ëllëg li ñu bëgg ci réew mi dinañ ko am.